di nga gis YouTube bi mën a dem foofe yeggali vidéo bi ba noppi fekk fa yeneen xabaar yu soxal tàggat yaram ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Jude Bellingham la journal bi fësal ca wu njëkk wo Bellingham à une victoire du Ballon door benn ndam képp bu ko amee est-ce que du jël Ballon door bi loolee mooy laaj bi samp ndax moom nag mi ngi amal euro bu baax ak réewam di Angleterre loole li koy firndeel moo di final euro bi kenn du ko ko nettali euro boobee nag dina jegal lool ngir jël ballon d'or bi ki mu koy xëccool di Vinicius ñu bokk nekk ci Real de Madrid coupe bu Vinicius jël moom mi di Bellingham jël na ko te jamono jii nag jege na lool ngir jël euro bi te Vinicius Copa bi mu demoon doxul dox lu wut ak réewam di Brésil toog nañu bu yàgg ca Copa boobee moo tax journal bi samp laaj ne est-ce que moom mii di Jude Bellingham bu jëlee euro bi du jël ballon d'or bi ci kanamu Vinicius loole mooy laaj bi samp ci commentaire yi maa ngi leen ciy xaar journal bi tamit ñëw na ci final bi war a am dimanche di dox ci diggante Angleterre ak Espagne final boobee nag journal bi waa Angleterre la cay waxal ne leen naka ngeen mën a def ba téye ñaari gone Espagne yi muy Nico Williams ak Lamine Yamal ndax ñaari gone yi ñu ngi doxal ci europe bi Angleterre ànd ak Gareth Southgate naka la ñu mën a def ba téye leen ba du ñu dox dimanche loole mooy laaj bi samp journal bi tamit fàttewul Copa America bi Copa boobe incha allah guddi dimanche la ñuy amal final bi bu minuit jotee Colombie ànd ak James Rodriguez ba ci Luis Diaz ñooy jàkkaarloo ak Argentine ànd ak Lionel Messi la poule ga waaye surnal bi mi ngi artu Argentine ne leen Colombie dañoo nekk ci dynamique bu baax lool maanaam dañoo nekk ci jaloore ndax vingt huit match moo ngi nii dégguñu muñal maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetti match yoo xam ne ku ñu jàkkaarlool bu ñu la dóoru doo leen dóor dañuy témboo kon nag final boobe dimanche incha allah dina nekk final bu neex journal bi tamit ñëw na ci final bi war a am ci réew mi suba incha allah coupe du Sénégal ñaari club bu amateur nag ñoo koy jongante muy Mbour Petite Côte ak les fruits du foot ñaari club yooyee ñooy jàkkaarloo suba mu soxal final coupe du Sénégal di amee ca Diamniadio stade maître Abdoulaye Wade. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay final euro bi war a am dimanche incha allah le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Espagne mooy jàkkaarloo ak Angleterre moo tax surnal bi ñëw ci final boobee. une final antipodique final boobee nag ñaari réew yi ni ñuy footballee du benn ndax kenn ku ne ak sab style bu dee équipe nationale bu Espagne moom ku leen xam-xam leen ci am Jóob indi njaay maanaam tikki taka ji bu dee équipe nationale bu Angleterre moom dañ naan tak tak tëmbal mbëkkante am bit wala ñuy am occasion noonee la ñuy footballé muy équipe nationale bu Angleterre waaye Espagne moom dañuy joxante bal bi am Diop indi Ndiaye ba yegg ci kang yi kon style yi duñu benn final bu neex nag la ñuy xaar dimanche incha allah journal bi tamit ñëw na ci Copa bi Copa boobee tamit guddig dimanche la ñuy amal final bi waaye Lionel Messi la poule su fekkee moo ko jël ak réewam di arsantine meilleur joueur bi ñu koy jiiñ est-ce que du doon dëgg maanaam nekk nit ki dàq football ci àdduna bi loolee kon du doon dëgg ndax moom mii di Lionel Messi bokk na ci ñi dàqa football ci àdduna bi waaye su jëlee Copa bi loolee dina niru dëgg lool ndax moom kat lépp lu ñuy jël cib club jël na ko moom Lionel Messi la ga waaye réewam di Argentine jël na fa Copa benn yoon jël fa coupe du monde benn yoon su jëlee Copa bi nag dina am ñaari Copa ak réewam di Argentine kon nag Lionel Messi li ñu koy jiiñ muy meilleur joueur bi su jëlee Copa bi dina ko firndeel journal bi tamit ñëw na ci club yi yeewoo fii ci réew mi bokk na ci jaraaf ak Tëngéej football club ñoom nag ñooy teewal Sénégal ci tournoi yi war a am ci biir Afrique bokk na ci Ligue des champions ak coupe CAF bu dee waa Tëngéej football club moom ci Ligue des champions ba la ñu jëm waaye laata ñu fay dem nag am na mat yu ñuy jongante muy premier tour bi tour préliminaire xam nañu ku ñuy jàkkaar lool stade Abidjan nekk ci réewu Côte d'Ivoire la Tëngéej football club war a jàkkaar lool nañu ñaan nag ñaari match yooyee ñu am ca ndam mën a dem ca phase de groupe ba bu dee waa jaraaf moom coupe kaaf la ñu leen di séntu waaye kat dinañu am fu ñu jaar door fa dem muy tour préliminaire bi segg gu njëkk gi ñoom tamit xam nañu ku ñuy jàkkaar lool ca Sierra Leone la ñu jëm club ba ñu fay jàkkaarlool mu nji tudd Lion It's kon nañu ñaanal Tëngéej football club ak jaraaf tour préliminaire yi ñu jëm ñu am ca ndam mën a dem ci phase de poule yi bu dee jaraaf ñoom coupe CAF la ñuy jongante bu dee Tëngéej football club ligue de champion bi ñu jagleel dénduk Afrique la ñuy jongante kon nag nañu ñaanal ñaari club yooyee ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport Declan Rice le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa milieu défensif bu Arsenal bi moom la journal bii di Star Sport dalal ñu seq waxtaan bu yaatu rawatina euro bi ñu dëgmal dimanche incha allah moom mii di Declan Rice nag li mu dig waa Angleterre moo di su Angleterre jëlee euro bi di ngeen ma gis ma naan sàngara naam gëj naa ko naan ndax sàngara man bëgguma ko li tax bëgguma ko moo de xet gi moo neexul bàyyi woon naa ko bu yàgg waaye su Angleterre jëlee euro bi man dinaa naanaat sàngara li ko waral moo di mbégte mi nga xam ne moom lay ànd ak loolee la dig waa Angleterre moom Declan Rice waaye tamit mi ngi artu équipe nationale bu Espagne ne leen bu ñu ñëwee li ñu bëgg ñun waa Angleterre moo di jëmbat fu la doxal ci final boobee nee na man de su ma ñëwee ci stade bi gis coupe bi ma xam ne coupe bi jom ak fulla ak xeex moo koy maye lépp lu ma mën ci tere bi dinaa ko def ngir sama réew di Angleterre jël coupe bi loolee la xamle moom Declan Rice nekk milieu défensif bu mën li muy def jamono ji nag ma nga ca Europe di doxal waaye suuru Arsenal la saw Gareth get tamit mu ngi ci journal bi moom nag mën naa am tournoi bi mooy nekk bu mujj ak réewam di Angleterre mën naa bañ a yokk contraam contrat am weeru décembre lay jeex soo moytuwul nag du ko yokk li ko waral moo di dafa sonn lool ndax dañu koy critiquer te bu match yi jeexee lu ne lay dégg lépp lu ñu yor ci lu baaxul muy supporters yi dañ ko koy sànni naam fédération bi waxuñu ko dañ lay dàq waxaguñ ko dara waaye soo moytuwul du yokk contrat ñu jugee Londres Angleterre wutali Portugal fekk fa Oxogo Ángel Di Maria la journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag dina toog ca Benfica doxal lépp am na ci diggante doomu Argentine bi ak njiitu club bi contrat nag jeexoon na tàkk bi saison bi jeexee ba ñu yegg ci weeru juin bii ñu génn le trente juin la contrat jeex tàkk naam club yu mag ñëwoon nañu def ci moom offre yu baax moo xam ca réewam di Argentine Amérique ba ca réewu Arabie Saoudite waaye moom ak président wu Benfica tudd Rui Costa juboo nañu ci lépp dina yokk contrat benn at foofee ca Benfica toog fa doxal muy Ángel Di maria journal bi tamit ñëw na ci waa Porto Porto googee nag ndogal yaa ngi wàcc nànk-nànk Alain Varela nekk doomu Argentine dina bokk ci kapiteenu club boobee di Porto ndax listub capitaine yi ma nga ca moom Alain nekk gone gu footballub Argentine am ci moom yaakaar waaye kat Porto googee seen gone googee tudd Francisco caaw di doom ci Sérgio caaw dañu ko bëgg a jaay waaye ba léegi nag client ñëwagut teg nañu ko ci marché bi ngir jaay ko waaye ba léegi gisaguñu client moom moomee nag di Francesco Conceição gone gu mën li muy def la Porto nag nee nañu bu ñu ci gisee xaalis dañ koy jaay waaye ba léegi gisaguñu client bu ñëw waxaale ko. ñu jugee Portugal wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport ñiy yëngu ci wàllu tennis bokk ca itali googee le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye fàttewul football bi rawatina waa Inter Inter nag daaw ñoo jëloon scudetto bi maanaam ñoo nekkoon champion. foofee ci Italie tey jii nag la ñuy door liggéey bi ànd ca ak INSA gi mi leen di tàggat tey la ñu woote ngir amal visite médicale yi door entrainement yi bu dee gan ñi moom tey la ñuy door entraînement yi muy Zielinski moom doomu Pologne la manga nga woon ca Napoli contrat jeex tàkk mu xaatim foofee contrat ba ci gone gii di Teremi Teremi iranien la moom it ma nga woon ca Porto contrat jeexoon tàkk foofee mu xaatim contrat ca Porto ñoom dinañu door entraînement yi tey jii ak Inzaghi Inzaghi moomee mën naa am bëccëgub tey bi mu yokk contrat officiellement foofee ca Inter ba atum 2026 bu dee doomu Espagne bii di Hermoso moom it mi ngi baral jéego yi ngir xaatim contrat ca Inter moom tamit ca Atlético de Madrid la nekkoon kontraam jeex tàkk bëgg-bëgg bi mu am moo di dem ca Inter jàppale Inzaghi muy Hermoso nekk doomu Espagne journal bi tamit ñëw na ci Ciro Immobile moom nag jege na lool ngir dem ca Besiktas doxal ndax jamono ji jubo ci lépp daanaka am na te mën naa am waxtu yii di ñëw mu fekki waa Besiktas ci réewu Suède Besiktas foofee la ñuy waajalee saison bi dëkk bu ñu naan Maribor fa la ñu nekk mën naa am waxtu yii di ñëw Giro Immobile fekk leen foofe moom nag ci club bu ñu xoolee club yi mu jot a jaar yépp li mu dugal ci ay bit mi ngi toll ci deux cent sept bit bit yi mu dugal ca équipe nationale ba nag bokk ci bit yi club képp la mi ngi toll ci deux cent sept bit jege na lool nag ngir dem ca Besiktas ñu jógee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport moom it tennis la fësal ca xët wu njëkkoo waaye fàttewul scudetto bi maanaam Serie A bi jamono jii gaañaa ngi waajal bu baax bu dee waay yuufe moom seen gone gi tudd Nicolas suulee club bu ñu naan Leicester nekk ci réewu Angleterre dañu ko bëgg deuxième division bu Angleterre la nekkoon waaye monté nañu maanaam saison bii di ñëw ca Premier League ba la ñuy football moo tax ñu bëgg a yokk seen dooley club boobee gone gii di Niklas Sule nag ñi ko moom moo di waa Juve waaye saison bii ñu génn ma nga woon ca France noone Juve ko able woon foofe waa Leicester nag def nañu ci moom offre bu toll ci trente million d'euros ngir jëlee ko foofe bu dee waa Juve moom xaalis boobee bu fekkee jot nañu ca li ñu bëgg moo di def ko ci ñett ñii ñu ñëw jàppale leen ke ca njëkk mooy Koopmeiners nekk gone gu mën li muy def keneen ki moo di Todibo moom doomu France la défenseur la keneen ki moo di jay Jayden Sancho ñett ñooñee ñëpp waa yuufi dañu leen bëggul lool journal bi tamit fàttewul waa AC bu Fonseca ñoom nag li ñu bëgg moo di ab défenseur défenseur bi ñu bëgg nag du kenn ku dul Pavlovic gone gi doomu Serbi la ma nga ca RB Leipzig di doxal moom nag défenseur bu costaud la maanaam am na taxawaay te am na doole gone gi ci boppam noppi na ngir dem ca AC doxal te loolee xamal na leen ko kon nag su waa AC Milan baralee jéego yi mën nañu koo am bu ñu sukkandikoo ci surnal bii di la gaseta dello Sport. ñu jugee itali wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kay lu Lunin la journal bi fësal ca wu njëkk wa yéen a ngi may gis ci Madrid ba léegi waaye samak des fii ci Madrid ci njiitu club bi la aju moom mi di doomu Ukraine surnal bi da koo dalal ñu séq waxtaan bu yaatu li mu njëkk a xamle nag bokk na ci moom bëgg-bëgg bim am moo di toog ci Real de Madrid doxal waaye nee na sama ëllëg nag mi ngi ci loxo njiitu club bi ñu naan Real de Madrid waaye nee na Courtois nag bokk na ci guul yi mën waaye man su may toog fii ci Real de Madrid tamit li ma bëgg moo di am temps de jeu bu doy maanaam di góolu ay minutes yu bari loolee la xamle moom Andriy Lunin journal bi tamit ñëw na ci Kylian Mbappé Kylian Mbappé moome ñoo ngi koy xaar ca Madrid dañ koy présenté le 16 bii ñu dëgmal muy mardi di talaata incha allah doon xaar lañu ca ama ko ëpp fuuf ndax ca boutique gu Real de Madrid jamono ji mayob Kylian bappe kenn mënu ko faa teg bët mayo ya ñu fa defoon jeex na tàkk waaye nag présentation bi bu ñu koy amal Santiago Bernabéu kenn du jaay bii yi gratuite la waaye jamono ji daal mayo Kylian Mbappé bu dee boutique gu Real de moom kenn mënatu ko faa teg bët loolee la journal bii di Marca yéene kay xamle journal bi tamit ñëw na ci final bi war a am dimanche muy final Euro 2024 bi waaye ñëw na nag ci lu yàgg yàgg lool di fàttaliku ndax ci atum 1996 Angleterre jàkkaarloo na ak Espagne ci réewu Angleterre ca Wembley match boobee euro la soxaloon waaye nekkul woon final quart final la woon match boobee bi ñu koy waaj a jongante ni mu demee nii la demee woon ndax ñëpp dañu ne woon Espagne moo mën Angleterre ca cëppaandaw ga Angleterre moo amoon ndam ca tir au but la Angleterre amee woon ndam loolee la waa Espagne di fàttaliku nee nañu bëccëg boobee nag dañoo sàccaloon waa Angleterre ndax ci biir match bi Espagne am na bit bu leer arbitre bi bañ ko ñu doxalaat tuuti ñu am penalty arbitre bi sëgg ko bi ñu demee ci tir au ci la Angleterre amee ndam loolee quart de finale mille neuf cent quatre-vingt-seize la woon kon nag dañu leen sàccaloon ca Wembley loolee nag du samay kàddu ñuy jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Rodri la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa kii ab milieu de terrain la doomu Espagne la ma ngay football ca Manchester City waaye jamono ji mi ngi doxal ci euro bi moom nag li mu bëgg moo de saa su demee ba tekki ay godaasam fu ñu ne équipe nationale bu Espagne rek xel yépp dem ci moom waaye demit ci farandoo yi nga xam ne ñoom la nekk ak jamono ji ca équipe nationale ba mën nañu caa lim Fabien Ruiz Mauritius Xarbaqaal Morota Nico Williams Lamine Yamal ak yeneen gone yi nekk ci équipe nationale bu Espagne li mu bëgg moo di bu ñu demee ba bàyyi football saa sunu ñu ne équipe nationale bu Espagne rek xel yi dem ci seeni tur loolee la xamle moom Rodri waaye nee na ñoo ngi waajal bu baax nag final euro bi nee na ñoom waa Espagne dóor nañu ñetti champion du monde ndax dóor nañu itali ci euro ba dóor nañu Allemagne bu yàggul dara dóor nañu France kon dóor nañu ñetti champion du monde li ñu bëgg nag moo di jàkkaarloo ak Angleterre gagné ko ndax Angleterre yi ci champion du monde yi la bokk loolee la xamle moom Rodri journal bi tamit ñëw na ci Nico Williams ñiy wax ci moom nag moo di waa Athletic Bilbao Athletic Bilbao ñoo moom gone gi waaye jamono ji nag dañu koo teg ci loxo fédération bi fédération bi moo koy aar waaye jamono ji nag waa Athletic Bilbao ñoo ngi artu fédération bi nee nañu aaru leen gone gi wax ji bari na lool ci moom journal yépp a ngi wax ci moom di ko perturber rawatina ci ëllëgam day dem ca Barcelone am du fa dem loolee génnu leen benn yoon def ca communiqué kon li ñu bëgg moo di ngeen aar gone gi maanaam ngeen protéger ko wax ji bari na lool ci moom jamono ji ci loxo fédération bi la nekk naam Athletic Bilbao moo ko moom waaye ci loxo fédération bi la nekk moom Nico Williams. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport anti le journal bi fësal ca bët wu njëkk wa Hansi Flick commence fort door na liggéey bi nag ci doorin bi gën li mu bëgg nag moo di dolli doole jouru Barcelone yi entraînement yu mitti la leen di tegal jamono ji li mu bëgg moo di gone yi am doole ba noppi am physique mën a football quatre-vingt-dix minutes te duñu ko yëg loole la bëgg moom doomu Allemagne bi nga xam ne saison bii di ñëw mooy tàggat Barcelone bu dee ñaari gone yi Barcelone yii moom officiellement aj nañu leen ci équipe A bi kon saison bii di ñëw dinañu soppi numéro muy Lamine yemal ak Pawo Kobarsi kon saison bii di ñëw Lamine yemal ak Pawo Kobarsi ci équipe A bi la ñuy bokk dinañu soppi numéro jël beneen numéro doxal journal bi tamit fàttewul équipe national bu Espagne ñaar ñii nag ñoo leen boot di doxal muy Lamine Yamal ak Dani Olmo ndax Espagne euro boobee dugal nañu ci treize bit waaye neuf yépp jaar nañu ci tànku ñaar ñooñee muy Lamine Yamal ak Dani Olmo suñu dugalu dinañu amal passe décisif wala bal bi jaar ci seeni tànk door dugg kon ñooy ponkalu équipe nationale bu Espagne loole nag du samay kaddu kàddu journal bii di esport la ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Nico Williams le sournale bi fësal ca xët wu njëkk wa offensive pour Nico jamono jii nag Barcelona ngi baral jéego yi ngir xaatimal contrat doomu Espagne bi nekk ca Athletic Bilbao waaye ca biir Barcelone googee njiitu club bi ñoom am nañu xel mu dal ci mbir moomee jàpp nañu ne dinañu ko xaatimal contrat waaye mbir mi duñu ca waxagum dara dañuy bàyyi ba final euro bi nga xam ne ca Berlin lay amee jeex su jeexee ñu dooro songo ay mbiram xaatimal ko contrat moom Nico Williams jamono ji Barcelona ngi baral jéego yi démb nag la Barcelone